demee si ses. a ses ki nga xamante ne moom mooy ci ndaanaan yi fa nekkoon. Uh-huh. Ethno Flow. Jim Tundu Gis. taxaw ci suuf. booy yi taxaw door seen ay sound. lu tax jour boobu man dañu maa sigil. bilaa walaay ndax boo taxawee ci sa ay kanamu ndaw li. Uh-huh. booy yi ñëw rap. Uh-huh. daal di béyee. da ngay sigil. Jim daal di yegg daal ne booy yi yeggoon léegi mooy waa Thiès yi. macha allah yaa ngi nekk waa mu ne booy yooyu. macha allah na leen bàyyi xel. Gösterip kıracak simit Sen en right simit Kıpırıyor avlu seni preza sinik Çocukluğum mıstık içimi Baba baba baba Fikirle da da da da da da Yeniden boy Hüda hüda tutuşu haremi Çekile sepa Kendiniz bir anda sonra Kendiniz kendiniz olun Kendiniz yedi kendiniz di wax ni booy dañ leen di félicité bu baax amuñu lu ñu wax ñun jeunesse bi rek lañu am lépp lu ñu am suñu quartier ñu ko gën kon di leen wax ngeen gën a jàpp bu baax a baax merci lii dafa nekk loo xam ne dañ ko yàgg a visé aussi dañoo nekk ay jeunes talent yoo xam ne dañoo nekk somme di def lu nice bon toll nañ benn moment boo xam ne dañoo amoon benn projet boo xam ne dañ ko waroon joob Thiès léegi joob nañ ko ba lépp sotti daal ñu ne balaa ñoo def dara ñun suñu koñ lañu am. te sob lañ am fii lañ juddoo fii lañ yaroo balaa ñoo def leneen feneen dañuy ñëw fii teg fi concert sam fi loo xam ne som gi yëpp dinañ ci sentir seen bopp pour ñu mën a xam ne am na seen i doom yu nekk som di représenté Thiès gi yëpp di def lu nice ñu mën leen def jox concert bu mel nii euh, ñëpp kontaan daal. bii mooy premier édition bu ñu génnee projet bi mais daan nañ fi def ay concert avant mais projet bu ñu ko génnee bii mooy suñu premier concert pour projet Maxi Buzz suñu grand yi ñu ngi fi som euh, mel ne Seen Ndiaye mu ngi gars yi suñu yaay yeeg suñu papa yi kenn bàyyiwuñu bàyyi kenn bàyyiwuñu ginnaaw gis nga lii buñ ko tegee ñoom ñoo tax quoi parce que ñoom am nañ am am suñuy conseiller lañu bu ñuy def dara yi ñëw tàggu wax leen lu ñu a mën a def ñu jàppale ñu si tamit ba mu mën a sotti quoi noonu la demee nit ku nekk mën ngaa soxla ndimbal mën nga doon milliardaire sax soxla ndimbal quoi mënul ñaax moo tax des du ñaax dañuy dem suñu grand yi laaj leen wala wala wala loolu mun ci ñax quoi. man Yoro Kangam lañ may wax mais Yoro Ndiaye la quoi mais tur rappeur bi moom Yoro Kangam la gars di wax quoi waaw. Ah. waaw Fra Geng les frères de la révolution artistique. boo xoolee ñun depuis ñu nekk xale ba tey ñooy ànd ndax groupe bi boo xoolee ñaari groupe la woon muy Jabalu Kër Team ak Duguruku mag BMK ñoo bokkoon groupe ñaan ñi ñoo bokkoon. mais bu ñu daan dem concert ñooy ànd lu ñu daan def tamit ñoo ko daan ànd def kon yàlla bu defee bañ booloo xam ne ñun ñeent buñ booloo defar daal dina nice loolu moo war a fragen quoi ñu booloo daal def kii. waaw dafay métti parfois da nga dem concert ñibbi si doo reer xam nga dañuy xiif tëdd ta concert rek dafa métti yëg si seen yëngatu bay bu a dee boo wàccee doo am sax fukki dërëm yow jëndee biscuit xam nga loolu dafa métti donc boo ci nekkee di ko gëm. te tey bu la dalee bu subaa bu ñu la waatee concert nga dem donc loolu gëm-gëm rek moom moo moo moo mën a def loolu quoi donc comme am nañ ci gëm-gëm bi je pense que ni yàlla baax na mais musique bi dafa métti trop trop trop da ngay jouer concert day métti concert bi dafay métti concert bi ñu teg rek dafa métti ak moyens yu bari boo xoolee financièrement dafa métti moralement ak ay leneen donc donc musique lépp ci métti quoi lépp dara neexu ñu ñuy jàppale bari nañu parce boo xoolee li ñu sol ni Kaw Shop moo ko defar ñu ngi koy félicité di ko remercier de passage moom boutique la buy defar ay affaire ak yëpp quoi Kao shop ak ay seeni njaay suñu grand ci koñ bi moom lu ñu xewle suñ ko woowee day jàpp bàyyi léppam ñëw jàpp ay si som bi gis nañ seen loxo tey ci affaire bi ak ñeneen ak ñeneen suñu yaay yi sax ñoo ci gën a son fi mu ne yaay lin doo ma nga ne toog ci heure bi daanaka fekk mu nelaw te tey dafa bàyyi yëppam ñëw nekk ci affaire bi ci jàpp te xam kon kooku du dem ay concert maa ngi jëm la kon tey su bàyyee léppam ñëw rek donc loolu aide la su soutien la boo xam ne ñun ndawal luñ ko dafa rëy si ñun quoi donc ñu ñuy jàppale ci côté boobu bari na. nag defaguñ à part petit gaal bi ma demoon mairie dugal na ci loxoom mais moom weesoo loolu defaatuguñ benn dara dara ñaar yëpp nag ñoom ñaa ñëpp dëgaloon seen loxo mais boo loolu weesoo amaatul dara loo xam def nañ ko bay si aide mairie wala non non. li ñu def suñuy moyen bopp lañ koy defee ñooy wut suñu xaalis ñooy wut suñu affaire in suñu soutien dem ak suñuy moyen bopp noonu lay defee à chaque fois quoi. di lancer gars yi appel pour ñu gën ñoo gëm parce que ñun som rek lañ am. te waa Somm ñoom ñoo ñu war mën a jàppale ba pare parce que ñun fu ñu dem ak compétition bu mu mënti doon dañ naan Fra bu Somm donc ñu ñu amee yeneen région naan bu Jaxaaw bu Ersan noonu la amee ay rappeurs Somm te fii Somm pratiquement rappeurs yi bëriwuñ donc waa Somm laa bëgg ñu gën gëm seen doom yi gën leen jàppale parce que ñoom ñoo ñu mën a jàppale ñu dem te ñu ngi seen ginnaaw. man la BMK bu Fra Geng di dëkk Somm di représenté Somm ak fépp fu ñu mun di nekk ñun Somm la ñuy représenté ndax ñun lii lañ am tey nii bu ñuy teg concert ak nu munti demee fépp fu ñu ko munti teg avant ñu ko fay teg dañ koy teg suñu koñ ba pare donc tey nii la demee ñu ne ci job bi génne projet boo xamante ne dafa tudd si Buzz ñëpp jàpp ci ñu génne ko réaliser ko pendant deux ans job ci yeneen studio yoo xamante ni bokkul ak studio bu ñu génnee Maxi bi chaque jour ñu ne ci job bi dem ba studio yooyu noonu joob bi gën a falaaw foofu noonu après ñu jéem a xool ni carrément kat ni studio yooyu noonu suñu job may ñu ñu génne fa projet ba ci lañ dem ci thérapie musique malgré que foofu noonu sentiroon nañ fa suñu bopp mais génnewu ñu fa maxi bi ñu dem ci euh, thérapie musique de passage maa ngi nuyu bopp moom moo job son ko job boo xamante ni franchement ñëpp kontaan nañ parce que maxi ba mu génnee tamit ñëpp apprécié de passage tamit maa ngi nuyu siiru bi bin may que ñi ci jàpp daal bari na Baye Amadou ma ko gis nga suñu tiset ñu sol Kao Shop King Ousin ku lim day juum quoi mais l'essentiel ñun ñu ngi ci job bi ñu ngi ci job bi xam leen wax ni lii ñëw mooy daag parce que ñu ngi waaj yeneen projet yoo xamante ni dina gën a falaaw lii nii ñu ngi koy waaj incha allahu rabi man dama nekkoon sama carrière solo di job kii ak kii ñoo bokkoon groupe kii donc tamit da doon dóor carrière solo parce que ñun ñëpp ñoo fawandoo nekk même même même am ñoo fawandoo même xale quoi léegi pourquoi pas ñuy dund li nga xamante ni moom la ñuy dund ñun ñëpp muy rap bi pourquoi pas ñu boole groupe boobu noonu def ko muy ven premier bi ñu dóor je me rappelle dañoo defoon benn featuring nii entre ñu ñu dóor ko affaire bi nice am am am buzz ñu ni pourquoi pas ñu dajale dajale groupe bi def ko Fra Gang non loolu la Fra Gang ko ba nii nii nii ñuy job lu nice xam nga ba nii ci wax gars yi nag avril xaar leen ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw di teg lu nice incha allahu man la Linzo from Prague dëkk Sokone affaire yooyu noonu léegi ñun ñoo ngi jaajëfal ñëpp ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci affaire bi mooy loolu daanaka sama gars yi wax nañ li ñuy def rek li wax rek mooy jaajëfal suñu gars yi ay ñoom ay say beeg ñoom seen i njaay ñeneen ñi nekk seen ginnaaw ñu si jàpp ñëpp ñu leen di bëggee quoi di leen wax ni di wax waa som ni wax dëgg yàlla ñoom lañ am quoi li tax ñu ñëw jël suñu premier concert teg ko som mooy ku si nekk balaa ngay gañe leneen boo gañewul sa koñ mënoo gañe feneen quoi ñu ne pourquoi pas ñu jël conseil bi teg ko suñu koñ xam nga ñu reconnaître ñu amaana sax parfois da ngay nekk si koñ di rap ñenn ñi duñu xam ni yow rappeur léegi boo tegee sa premier concert teg ko sa koñ gars yi dinañ xam ni yow mii kat yaa ngi yëngu ci lii am nga talent xam looloo tax ñu ne ñu premier concert dañ ko teg fii incha allah avril ñu ngi waajal benn show bu mag boo xamante ni entrée lañ koy def quoi concert muy baax de wax dëgg yàlla waa som ñëpp génn nañ jàpp nañ ci wax dëgg yàlla dañoo namoon programme ak som loolu loolu gënoon yokk tax sax ñu ne nañu teg fii concert bi affaire yooyu sans vie def naa ci wax dëgg ñaari sàkku ñaan nangu jël na cëru bañ ñàkk pexe moo fa feeñ ñaan ko tànc di ko gaañ taxul seen atte xeeñ buur ak buur raison wu doole moo fi atte tàng ni fuur cellule ak cellule ni mu xatte wareef ci conjugal ñu privé ko selon ko weer togg tëdd ba deeli des moo jug di weer freedom yaa ko tëj kañ ko jant kañ ko succès